Sadio Mané ñanco dabliwaat na beneen record boo xam ni daanaka ci Allemagne ji yëpp moo ko détene dinañ ci dikk léegi mooy ubbi li nga xam ne mooy xibaar yi ngeen def seen i abonnement xam ne ni compte TikTok boobee nga xam ne moom la doon yoon ci TikTok daanaka TikTok a koo dagg kon fi mu toll nii YouTube bi ngeen mën di gundaandaat ginnaaw bu ngeen demee fere feñe loo bi nga xam ne moo am fële ca Farefeñe ah, ci marché bu ndaw nga xam ni sama waa ji moo fa ne ah, waaye yéen ñëpp def leen ndànk teelu leen yéen ñëpp ay jënd te kenn comme ci man di doon danga nga am tissu boo xam ni ah, bu mucc ay dule comme ni ngeen koy gisee ci image yi dara doy fa ci li nga xam ni moo nekk ci champion bu mag bi nga xam ni mooy soppay na bi soppay na bi moo leen di may xibaar yi ci Aladji Malick TV ñancoo nin ko waxe woon léegi ci ndorteelu xibaar yi moom lañ ko ubbee Sadio maane sama waa ji nga xam ne daanaka fi mu toll nii bi ñu defee li nga xam ne mooy sondage yi nga xam ne daanaka par at la xool réew mu ne footballkat ya fay ne kenn ku ci ne li ngay laal ci doomu xaalis ñu daal la koy coppatil tegal la ko ci taabal ji France ak Angleterre daanaka ñoom ñëpp nag def na ko Bayern na moo ko mujj woon a def ak fi nga xam ne moo nekk Allemagne def nañ ko nag Sadio Mané mooy footballkat bi nga xam ni ci Allemagne gi yëpp moo ci ëpp lu muy fayeeku ci doomi xaalis loolee gi at mu jot vingt quatre millions d'euros la xam ni moom la gonek sénégalais gi di coppati di ko laal ci at mu jot moo xam ni daanaka yebbeeku na moom nag li mu doon football euh, fële nga xam ni moo nakk Angleterre daan na fa fayeeku lu toll ci euh, sept millions d'euros maanaam juróom-ñaari millions d'euros loolu euh, bu ñu ko xoolee daanaka salaire ba muy laal fële ca Bayern na ëpp na ko ñetti yoon yu tegal genn wàll xoolal li ko salaire boobu ëppee nga xam ne gone gi daanaka lu mu daan football Liverpool ñetti at benn ñetti at genn wàll benn atub séngam la koy fayeeku fële ca Bayern loolee euh, moo am tey mooy dëgg mu nekk loo xam ne ñu ngi ko koy ñaanal mu doon ay tawféex ci moom mu jikko ndax xaalisam moom daanaka kenn du ko booleeg moom da koy dugalaat ci biir Sénégal dugal ko ci li nga xam ni mooy dëkk ba nga xam ne fa la ne di ca defar ay bagages yoo xam ni yu am solo la ndax moom moomee euh, fàttewul dori sinam fi nga xam ni euh, foofa la tóoroonub jëm Messi nag ci Barcelone nga xam ni euh, coow laa ngay bëgg a fintoon ni nag nekk loo xam ni lu sérieux la président Barcelone bi wax na nag fintoon ni euh, daanaka Messi moom euh, Barcelone bëgg nañ ko waaye nag li gars yi gën a bëgg foofee Messi ca Barcelone mooy Messi moo xam ni contrat am jeex na tàkk nga xam ni buy ñëw Barcelone day raam ndànk rek dugg du dikke gars yi dara du leen coûter cher loolee ndax maanaam Messi moom dana ko nangu wala moom day dem MLS wuti ab xaalis loolee moom moo ko mën a wax ak ki nga xam ni mooy avocat ak papam ji nga xam ni daanaka ñoom ñaar benn lan loolee tamit nekk loo xam ni moom la kii di équipe bi la di Barcelone bëgg loole nañu ci yoon yàgg beneen information di Abdou Lahad Diallo euh, bi nga xam ni fi mu toll nii mi ngi ci forme boo xam ne bu mucc ayib la forme boo xam ne bu tegu ci temps ak heure la forme boo xam ne daanaka nag bu ko yebbee fële nga xam ni mooy Côte d'Ivoire Sénégal mën naa baax ci moom baax ci équipe nationale bu Sénégal bi nga xam ni euh, moom lay euh, yebbi fële ca bi nga xam ni moom la war a yóbbu ci Côte d'Ivoire ndax moom mii di gone gi jàmbaari fakk tëdd la woon na blessé boo xam ne amaat nan ci moom yaakaar ju mat sëkk moom